wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri man abaat jërë ngeen jëf euh, mbokki tubaa ca kanam Nour daare ni euh, fu ci waay mën di nekk ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar euh, mbokk yi comme ni leen ko waxee woon tubaa ca kanam sumb ay liggéey yu bari ci dëkk bu sell bii di Touba ñu demoon nag Daaru Xaddim ci poste santé bi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy def foofu ba ñu fa jógee demaloon nañ leen Kër Gol wan leen liggéey bu foofu nu mu toll tey jii nag mbokk yi ñu ngi fii ci université bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér moo ko sumb fii ngir liggéeyal fi Serigne Touba Touba ca kanam nag keroog bi nga xamante ne doon nañ teg xeer wi ñëwoon nañ fi ànd ak sunu jëwriñ Serigne Abibou Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadel indi woon li mu million jébbal ko sëriñ bi ngir tàmbalee ko liggéey bi waaye nag Touba ca karam yemu ca ginnaaw loolu moo waxoon sëñ bi ne ko dafay bëgg a jël benn bâtiment boo xam ne moo koy liggéey ba mu àgg jébbal ko caabi yi mbokk yi tey foofu la ñu agsi tey ci liggéey bi wan leen seen ñaar téeméer yi nga xam ne yéen a ngi koy jox Touba ca kanam fan leen lañ koy defal ñu ngi fii ci université bu Serigne Touba Serigne Mountakha bi nga xam ne mu ngi koy tabax fii ci pàkk bu tedd bii nga xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla ñu ko suñu borom fayal moom moo ko nattoon bàyyi ko fii muy université sëñ Mountakha nag ngir mottali yéen a jooju fi sëñ Abdou Lahad amoon mu taxawal fii njàggukaay bu mag a mag boo xam ne tey képp ku fi dugg di nga gis ne bi mu ko tàmbalee léegi yàggut diiru at lu tuuti la waaye ku fi dugg di nga xam ne lii mooy yoonu murit lii mooy passif lii mooy yitte tey nag ñu ñëw fii ci bâtiment bi nga xam ne Touba ci kanam moo koy tabax ñu fekk fi nag ingénieur yi nga xam ne Touba ci kanam ñoom la leen fi teg ñuy saytu entreprise bi nga xam ne ñoom ñooy tabax euh, bâtiment bi euh, ñu ñëw ci jéeme su ko defee moom mu leeral askan wi euh, liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam sumb na ko fii nu muy toll kañ na tàmbali kañ na jàpp ne incha allah rythme bi bu dakkut ak yan jafe-jafe moo ci am waaye mu leer askan wi mi bu dakkul feeg ñaata temps jàpp nañ ne euh, Touba ci kanam dana jébbal caabi sëñ Muntaxa. waaw liggéey bi ni ngeen ko gisee nii fii la tollagum ñu ngi ko tàmbali woon ci juillet début bi nag ñu amoon ay jafe-jafe lool ndax euh, pour am courant bi rek dafa xawoon a jafe ndax def nañ demande bi waaye toog nañ lu yàgg xanaa soog koo am. ndox bi tamit même chose bi ñu defee suñu branchement ba pare dafa tombé woon ak euh, forage bi nga xamante ni moom moo ñu war a tamit panne boobu tamit Touba ci kanam def na ci ay jéego ba pompe yeeg yooyu noonu yëpp ñu réparé ko ba ci lañ tàmbali liggéey bi ba tey jii nii ci lañ toll ci coulage euh, premier plancher bi muy plancher au RDC moom nag dal plein la de vingt cinq centimètres daanaka ci surface bi ci surface bi yëpp. bon ba fiñ ci toll nii nii daal moom yaakaar naa ni rythme bi instant bi ni muy doxee nii bu dara bu bu bu bu ñu dara kiiwul daal. gàllankoorul rek xam naa incha allah euh, fii ak euh, septembre dina fekk gros œuvre bi jeex. te comme gros œuvre bi ak second œuvre bi dafay dafay duggaale euh, second œuvre bi buñ ko xaymaa xëy na ci ñetti weer. wala ñeent maximum war nañ koo mën a maanaam buñ paree gros œuvre buñ ci tegee ay ñeenti weer war nañoo mën a pare kii bi d'après planning bi planning bi moom septembre incha allah mhm. ci la gros œuvre bi war a jeex incha allah mhm. mu ngi nekk benn batiment majalis salle d'étude R plus 3 euh, fi mu toll nii ñu ngi ci rez-de-chaussée bi dese nañu yeneen ñetti niveau yu ñu war a tegaat ginnaaw bi ñu la jaajëfalee ñu bëggoon nga leeral askan wi liggéey bi ñu ko Touba Ca Kanam engagé ndax dafa ko jox ab entreprise ba pare teg fi ñoo xam ne ñoom ñooy saytu entreprise boobu matériel bi tamit ndax Touba ca kanam dafa bàyyi entreprise boobu di ko jënd wala ndax Touba ca kanam mooy jëndal boppam matériel yooyu yëpp bëgg nañ ci ay leer. waaw liggéey bi moom Touba ca kanam moom mooy fournir matériel kii euh, matériaux maanaam li jëm ci gravier ciment sable fer ak yooyu noonu Touba ca kanam moom moo koy approvisionné. Mm. entreprise bi ñu jël moom mooy ETDM moom dafay def main d'œuvre bi comme Touba kanam mooy indi matériaux bi entreprise moom mooy réaliser mais approvisionnement bi moom euh, amul rupture moom macha allah bi ñu bi ñu tàmbalee ba ni ñu toll nii amagul rupture maanaam lépp lu ñu soxla buñ koy soxla pour utiliser ko ci bâtiment bi dina fekk maanaam mu nekk fi ba noppi entreprise bi moom mooy ETD moom mooy réaliser ñoom ñoo nekk nii di couler am naa fi mu toll nii bâtiment bi nag dafa dafa gudd c'est sur cinquante six mètres mhm. moo tax dafa am joint nga xamante ni moom mooy waral ëllëg ci biir bu ci tassement nare am ak yooyu noonu bâtiment bi yëpp du ànd mhm. moo tax mu am benn juin instant bi ñu ngi ci coulage bi xam naa ni premier joint bi moom la ñuy njëkk a couler mhm. après ñu soog a soobu deuxième juin bi incha allah. li jëm ci contrôle bi moom maanaam fii dafa am nuñ ko structuré dafa am maître d'ouvrage maître d'ouvrage mooy sëñ Muntaxa sëñ Mountakha mu am maître d'ouvrage délégué sëñ Maam Thierno Mbacke nga xamante ni waa maître d'ouvrage délégué correct ñoom ñoo ko fi teewal mu maître d'œuvre bi soog a ñëw ñoom ñoom ñoo ñuy contrôler waaye ñoom avant ñu ñuy contrôler ñun dañoo dañuy def benn contrôle interne boo xamante ni suñu biir la maanaam waa Touba ca kanam ci boppam dañuy contrôler bâtiment bi ñeneen ñi soog a ñëw contrôler bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee dañuy fekk maanaam lu ci ëppoon ci ay externe bi bu ñëwee du am lu bëri lu mu ciy yokk ba tax na am na tamit groupe boo xamante ni dafa nekk ci ginnaaw tubaa ci kanam muy benn groupe d' ingénieur bu tudd RMIC benn réseau Mouride ingénieur yi conseil boo xamante ni ñoom par dimanche dañuy ñëw def visite muy ci eh, université bi di ci yeneen poste de santé yi tubaa ci kanam di defar yëpp tamit ñëw saytu liggéey bi xool qualité bi lépp loo xamante ni dañ ko ci war a dindi defaraat ñu dindi defaraat luñ ci war a euh, corriger ñu corriger ko ci ba tax na daal euh, fi mu toll nii suñu xel dal na daal. jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak sëñ maam na Ndiaye mi nga xam ne mbooleem liggéey Touba ci kanam di liggéey mu jëm ci wàllu réalisation rek moom moo jiitee kuréel googu euh, sëñ maam Thierno ñu àndoon tey ñëw doon nemmeeku su liggéey bi euh, ni ko jéeme waxee ingénieur bi liggéey bi mu tàmbalee léegi mu ngi toll ci juróom-ñaari weer mois de juillet la woon. Euh, wax na jafe-jafe yi nga xam ne amoon na avant démarrage bi kon mel na ne tabax bi bi biñ ko tàmbalee léegi xëy na kon ci juróomi weer lay toll euh, lii ñu fi def nag nga xam ne tey agsi nañ fekk ñu ngi ci coulage bi mu doon loo xam ne lu am solo la euh, ndax li nga xam ne Touba ci kanam mu ngi ko doon fournir ci matériel ak yaakaar ji nga xam ne am nañ ko ci entreprise ba tànn ko ndax appel d'offre lañ lañ defoon ba tànn ko ba jox ko liggéey bi ndax bi nga agsee fii loolu lépp gis nga ne mu ngi fi. waaw asalaamaaleykum suñ Fallou ñu ngi lay siyaar di siyaar euh, suñ Jéeme ak euh, sëñ Ngañ Caam mi ñu àndal di wax ne comme ni nga ko waxee rek euh, liggéey bi ba mu tàmbalee xaw na yàgg waaye dëgg-dëgg liggéey bi bi mu tàmbalee léegi ci juróomi weer lay toll te ni ko suñ Jéeme waxee rek approvisionnement yi moom amul dara loo xam ne dina manqué. lépp loo xam ne ingénieur bi bind na ko ne lii dañ koy soxla d'ici temps nangam dañ koy euh, jaarale ci euh, fi mu war a jaar lépp ci procédure lay jaar ndax euh, Touba ci kanam dafa am commission bu ñuy wax achat ak commission bu ñuy wax finance waaw dina jaar foofu yëpp bu ko defee incha allah dañuy ci def suñu yittey bopp ba nga xamante ne bii loolu du tardé bu loolu amee tamit. comme ni mu ko junjee sànq fii lépp lu ñu fiy liggéey tamit qualité lay doon ndax euh, fii euh, suuf bu ñu fi liggéeyee suufu njaareem la béton bi tamit béton bi ñu fi liggéeyee basalte lay doon moo xam muy 03 bi moo xam muy 38 euh, bi moo xam muy 816 bi ciment bi tamit 42 5 bu Dangote bi la ñuy liggéeyee boobu tamit mel ne loolu yëpp bureau de contrôle bi moo koy excisé kon day mel ne euh, ci wàllu qualité bu dee fer bi tamit fer bi yëpp importé lay doon kon day mel ne ci waru wàllu qualité moom lépp respecte nañ ko euh, ni mu ko waxee tamit gros œuvre bi mi ngi avancé ba fi mu toll nii euh, second bi mi ngi commencé nañ ba jël nañ plomberie plombier bi ak électricien bi ba tax na loolu tamit lépp loo xam ne def nañ ko fi ci wàllu plomberie qualité lay doon lu ñu fi def ci wàllu électricité tamit. qualité lay doon lépp bureau de contrôle bi dina gannaaw bu ko ingénieur bii di jéemee contrôler bureau de contrôle bi daf koy contrôler waat boo xoolee ci kaw coulage bi am na koo fi doon gis sànq koo xamante ne moo sol yére bu noir bi kooku moo bokk ci bureau de contrôle bi day taxaw di assister coulage bi ndax béton armé bi euh, danañ ko respecté waaw ok. jërëjëf euh, jërëjëf ba tey ñu ngi ak sëñ Ngagne Thiam sëñ Ngagne gannaaw bi ñu la nuyoo ziar la. Euh, mu mel ni sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu génie civil suma ma juumul ci jëm ci wàllu tabax n'est-ce pas euh, nga bokk it ci Touba ci kanam di membre Touba ci kanam bu actif euh, nga bokk tamit ci groupe bu réalisation tey nga ñëwoon fii doon saytu liggéey bi nga xam ne dénk nañ ko benn entreprise mu di ko tabax waaye nag teg fi ingénieur boo xam ne moom moo ñuy saytu loolu ginnaaw bi nga ñëwee ba gis liggéey bi en tant que technicien lan nga mën a leeral askan wi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 boo xamante bi ne ni Touba ca kanam moo ko jël ngir fas yéene ko defar ba joxe caabi yi ci kaw defar boobu nag lenn taxul mu man ko lu dul li nga xamante bi ne ni moom la ci taalibe yi nga xamante bi ne ni nekk di ko di joxe muy ñaari téeméer yooyu nga xam moom la ñuy joxe parweer te leneen li ci gën a tey yéeme mooy boo seetloo ci àdduna fu ñuy defaree taax mel nii da ngay dégg ñu ne la benn bureau de contrôle technique moo cay nekk wala yenn saay sax yi ci ëpp du ca am waaye bi boo déggee ci wax ji am na ci ba am ci ñett ndax am na boo xamante bi ne nii ki nga xamante bi ne nii dañuy ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi te mu ànd ak wér loolu muy sëñ Mountakha Mbacké di xalifa général ku lu murit moom mi nga xam ne maître d'ouvrage bi ñi mu jël ñu war a di ko contrôler ko am beneen bureau boo xamante bi ne bureau d'ingénieur murit la ñoom it di fi ñëw dimanche bu ne di saytu liggéey bi. amit ingénieur boo xam ne dafa bokk ci réalisation nekk fi di saytu loolu kon loolu day wone fi Touba ca kanam teg li nga xamante bi ne ni moom la mbokki taalibe yi di joxe ak fi mu ko jëmale beneen bi ci toppit mooy que ni euh, dafa am loo xamante bi ne ni fi mu toll tey jii bu nit doon julli dañuy wax ne dafa am ay farata ak i sunna bu ñuy tabax bâtiment it dafa am lu ñuy wax ay normes ak ay règlement yoo xamante bi ne ni àdduna bi yëpp dañ ci méngoo ànd ci Sénégal nag li ci ëpp ci ay normes francaise lañuy liggéey loola it dañ koo saytu ba doon loo xamante bi ne dañ cey jox ndigal ñu doon loo xam ne dañ ko ciy topp di ko ci saytu lenn lu ci ne saa yu ñu ko waree def def ko nañ ko ci war a defee. kon daal li ñuy nga xamante bi ne ni moom la ñuy tëj di ko wax mooy que ni ak cant la ak cant la. cant la goo xamante bi ne ni di ñaanal tamit ñi nga xamante bi ne ni fekk nañ leen fi yàlla sunu boroom dëgëral leen ba euh, taax bi nga xam ne moom la ñuy def mu doon ay taaxi taaxi taaxi taaxi taax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñoo ko déggandoo ni nga xamante ne bii noonu la ko Mamadou Diémé waxee di ingénieur bi nga xam ne Touba Ca Kanam moo ko teg fii ngir mu koy saytu liggéey bi ak sëñ Maam na Ndiaye mi nga xam ne moo jiite réalisation ak sëñ Ngagne caam bokk ci réalisation di ingénieur en génie civil. Euh, mbokk yi liggéey baa ngi nii muy liggéey Touba ci kanam bi nga xam ne jël na ko ci université bii nga xam ne sañ sëñ Muntaxa moo ko fi naal muy R plus 3 boo xam ne dañ fiy jàngale majalis ni njàngum xam-xam euh, ñu ngi soññu murit yëpp nag ci ñu gën a góorgóorlu ci Touba ci kanam gën a jàpp ci Touba ci kanam te xam ne li ñu bëgg lenn rek moo ñu ko mën a may muy weer bu ci nekk képp ku yaakaar sëñ Touba nga joxe ñaar téeméer ci Touba ci kanam bu ko ñëpp defee lépp loo xam ne yoonu murit soxla na ko duñ ko jéggaani fenn kon nag liggéey ngi nii boo xam ne mën nañoo wax na ci diiru juróomi weer la lañ ko tàmbali moo agsi fii ñu ñaan mu àgg ak jàmm bañ jébbal caabi sëriñ Muntaxa buñ noppee naalaat yeneen ndax Touba ca kanam moom lépp loo xam ne luy développement la ci dëkk bi nag fas yéene ci dugal loxoom moo xam muy wàllu poste santé yi moo xam muy jàngukaay yi moo xam muy éclairage public yi moo xam lu mu di doon loo xam ne doomu aadama dana ko soxla ci dundam ca fa mu nekk tubaa ci kanam dana dugal loxoom ca loolo kon nag murid yi ay ca leen ñëw leen ci tubaa ci kanam ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñu war a demaat poste santé bi nga xam ne moo nekk fële ca Kër Gol nga xam ne noppi na ndigal rek la xaar ngir mën koo inaugurer ñu leen la fa ci kanam liggéey ngeen gisal ko seen bopp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. maskani Tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat